إن الله وملائكته يصلون على النبي estati di gàmmu ak El Hadj Mouhamadul Amine Ndiaye xaadimul muslimiin الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم wa salawaatullahi wa salaamuhu ala allazi wulida xayra waladi wa xayra walidin bi xayri baladi bokku téléspectateuru kër gi di Faaida TV amaan nañ mbégte lu rëy rëy dolliku ci mbégte lañu amoon ci événement yi ñu génn ñu fas yéene dikk ngi nag ci statut di gàmmu statut di gàmmu ñu fas ko yéene ànd ak yéen ni ko àndoon ak yéen ci statut yi passé tàmbalee woon ko ca tabaski ga statut de la tabaski jóge ci ñëwoon ci statut bi aju woon ci wàllu tam xarit jóge ci ñëw ci statut di safar ñu fas yéene ànd ak yoon yéen noonu ci statut di gàmmu ba ca fukkeelu fan ba ndax xam ngeen ni gàmmu ñu ngi koy célébrer ci fukki fan ya ak ñaar waaye guddi fukki fan ak ñaar incha allahu taala mooy guddi gi nga xam ne ci la ñuy fàttaliku bisub juddug yonent bi alayhi salaatu wasalaam mbokk yi weeru gàmmu xam ngeen ni niñ ko waxee mooy weer wi nga xam ni ki gën ci min mbindeef yi muy sayid walla di aadam maanaam ki nga xam ni mooy sangub mboolem lu aadama jaboote mooy sa sang xatta ba ci aadam alayhi salaatu wasalaam sax moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy ab sangam kon kooku weeram ñëw na tey di benn fan ñu fas yéene ànd ak yéen incha allahu taala lépp lu aju ci jëmm ju màgg ju tedd jooju ñu fas ci yéene ànd ak yéen mbokk yi nag balay boobu dinañ leeral gàmmu euh, kan moo ko njëkk a def ci lislaam mbokk yi gàmmu mi ngi njëkk a ci réewum iraq ci dëkk bu ñuy wax Orbel alxaakim bu siiw ñu koy wax Abu Saïd siiwoon lool ci Koukabour yi doonoon gouverneuru jullit waaye doonoon ku bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam te al imam suyuti seedeel ko ko ibnu kathir tamit seedeel ko mbaaxam ak maandoom ak li nga xam ni moo doonu njàmbaar gi mu wone woon ci tasaare li nga xam ni mooy diine lislaam mooy ki njëkk a gàmmu ci li fis nga xam ni daf ko célébrer officiellement da waaye organiser ko organisation bi nga xam ni tey monde islamique yépp ñoo ngi ci maase di ci célébrer juddug yonent bi alayhi salaatu salaam moom Abu Saïd moom muy Masfar euh, di doonoon koo xam ni tam muy euh, ibnu Zeyni Diin doonoon koo xam ni nii bëgg yonent bi ak célébrer juddu yonent bi alayhi salaatu wasalaam poussé woon na ko at mu jot daf ko daan dajaleel ba dem na ba financé ci guddug yonent bi lu tollook ñetti téeméeri junni ci xaalisu diinaar hmm, def na ko ci gàmmu ngir fàttaliku bisub yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu ko daan def nag di togg ay ñam euh, di ko séddale waaye itam di fàttaliku siratu nabi yonent bi alayhi salaatu wassalaam jaar-jaaram maanaam biographie muy lu amaam solo moom kon moo njëkk a célébrer li nga xam ni mooy gàmmu ci réewum Iraq ci dëkk bu ñuy wax Erbel euh, naka noonu bu ñu demee ci ki nga xam ni Ibnu Xalkaan ci téereem boobu bi muy tarjama ki nga xam ne nii mooy euh, alxaafis Abil Xattaab di leeral euh, jawalaan boobu mu daan def muy tournée yooyu mu daan def ci pays islamique yi mi ngi wax ni moom alxaafis Abil Xattaab mi ngi muy ibnu daxiya mi ngi jóge Maroc doon wër pays islamique yi waaye bi mu egsee Cham egsee Iraq fi nga xam ne mooy Iraq ba egsi ci dëkk boobu di Arbel fekk na fa Abu Saïd boobu nga xam mooy njëkk a célébré gàmmu bi mu ko fa fekkee gis cofeel gi mu am ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu daal di koy bindal téere boo xam mi ngi ko tuddee kitaabu tanwir fii mawlidil bashiri nazir kitaabu tanwir fii mawlidil bashiri nazir bi mu ko woyee jébbal ko Abu Saïd mu bégte lool yëkkati alfu dinaar jox ko ko maanaam junni dinaar neexale ko ko ndax dafa bëggoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam bokk yi nag loolu mi ngi am ci alqarn arrabia maanaam quatrième siècle après euh, l'hégire maanaam après gàddaayu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci la am kon jàppal ni gàmmu euh, ci bi shaklin munazzam maanaam ni ñu koy defee ci monde islamique mi ngi am ginnaaw juddug yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba mu am ñeenti téeméeri at yu tegal tuuti ki ko njëkk a def di Abu Saïd ñu gën koo xam ci ko buur yi doonoon xaakim ci orbel ci euh, fi nga xam ne nii mooy Iraq su ko defee noonu la ñuy wéy yéen ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba kera ñuy am fukki fan ci weeru gàmmu kon tey dañ leen doon indil histoire gàmm ak kan moo ko njëkk a def ci lislaam ak lan moo taxoon mu def ko su ko defee suba ak jàmm ngeen topp ñu ci suñu deuxième statut di gàmmu ñu fas ci yéene ànd ak yéen wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.